bokk na ci jeexinte bi ci njëkk moom mooy man xermaanul ilm borom bi da lay xen xam-xam xam-xam nag su ma ko waxee man xam-xamu islam laa ci nam xam-xamu diine waaye wallahi dana rawalaat ba ci si xam-xamu addina maanaam def bàkkaar dafay xañ nit ci xam-xam ku gëm yàlla la kon yow la ñuy waxal maanaam su fekkee da ngaa gëm yàlla ba noppi te yaa ngi def ci ay xeeti bàkkaar moo xam lu ñuy wax la wala lu ñuy jëf la wala lu ñuy dégg la loolee borom bi dafay def mu xañ la xam-xam moo tax wax kat bi na dox ni maam imam Shafii ay mu doon wax ni shakawtu ila wakiin min suui xifdi fa arshadani ila tarki almaasi wa axbarani bi anna al ilma nuurun wa nuuru llahi la yuhda li aasi xam ngeen ni imam Shafii yàlla daf koo mayoon neexum xel ba bu daan sax dafay ubbi benn page nii xool ko rek daal di koy mokkal tëj ubbi beneen page imam Maalik léeg-léeg dañuy tëdd di mokkal mu ni ma mu déggal mu ni ma bàyyi def bàkkaar su fekkee yaa ngi def bàkkaar mooy tëddi ko ko mu xamal ma ni ma xam-xam leer la te leeru yàlla du ko jox def katu bàkkaar wa axbarani bi anna al ilma nuurun wa nuuru llahi la yuhda li aasim xoolal tey démb doomu nday jamono yonent saa sallam ñaari ci ay xadis lu mel ni xadisu Barra ibni Azib nga xam ne xaw naa jege paas ak genn wàll saxaaba yi dañ ko doon dégg yonent wax ko benn yoon rek ñu mokkal léeg-léeg su yonent bi baree lu mu répété ñetti yoon lay doon saxaaba yi mokkal bañ na ko ba jamonoom sax daf doon tere bind jamonoom daf doon tere ñu bind ci mujjantalu dundam ci la doog a digle ñu daal di bind ci jamono ji wax naa uktubu li abi shar ba ko waaji ne man mënumaa bind mënu bindal leen waaye doomu ndey xool ñoom ni ñu meloon dañ doon ndamoo mën a mokkal doon ndamoo mën a takk parce que bari wuñu ay bakkaar moo taxit seeni xel dafa bënnoon dafa leeroon waaye tey bi nga xamante ni dañ ba ay bakkaar bari bi si njëkk maanaam xam-xam amut mbaa bu xam-xam amee yàlla rocc na ci barke te xam-xam bu amul barke moog mbaa mu gis ay téere ñoo bokk yam wa illaa ba ko gis waa ji lu mu xiir xiir xiir maanaam mokkal daf koy jafe wa ma dalika illa bi sababi zunubihim nekkul lu dul sababu bàkkaar yi nga xamante ni moom la ñuy fàggu gis nga ñaareel bi mooy même duggal ba ci biir école yi nga xamante ni maanaam jànguñu sax li ñu tuddee islam maanaam gis ngeen pour wan la ne la du yem ci xam-xamu diine rek waaye da ngay gis pour wan la ne la maanaam rocci ku ci yàlla subhanahu wa ta'ala di rocci barke wala rocci ku ci yàlla subhanahu wa ta'ala di rocci la nga xamante ni moom mooy njariñ te programme bi nga jàng bu année scolaire bi jeexee bala ngaa dellusiwaat lépp ngay fàtte dootu xam dara li mu lay wan mooy kon ndekete maanaam sabab bàkkaar day war dara dootul mën a tàggat ci xel kon bi njëkk ci jeexintal yi bàkkaar def ci doomu aadama moom mooy xirmaanul ilm mooy daf lay xeñ xam-xam ñaareel bi nga xamante ni bàkkaar dina ko def ay jeexintal ci doomu aadama moom mooy xirmaanu risq soo delloo ci masal imam ahmad yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi fay wax ni maanaam doomu aadama danañ ko xañ wërsëg wi mu waroon a am ci sababu bàkkaar yi mu doon def doomu aadama dinañ ko xañ wërsëg wi mu waroon a am ci sababu bàkkaar yi mu doon def doomu lay taqwallah yajlibu rizq kon nit ki mu ragal yàlla dafay indi wërsëg wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqahu min haythu la yahtasib wal aksu bil aks kon ñi nga xamante nii noonu la ragal yàlla di xëccee wërsëg noonu la ñàkk a ragal yàlla di dàqee wërsëg te def bàkkaar mënta romb mooy yàlla subhanahu wa taala kon xoolal tey maanaam li nga xamante nii moom moo ni waroon nekk njariñ du doomu aadama yi jariñoo tey benn lañ ci jariñoo lu tax lépp dara sababu ko lu dul sababu bàkkaar yi nga xamante nii moom la ñuy def ñaata tey ñoo soxla ay liggéey liggéey ñaata ci ay junni ñoo jàng ba am ay diplôme nga xam ne ñii ku leen jox liggéey bi joxoo ko ku ko mënut te amuñu ko ñaata ci ay nit ñoo mën seen métier ba pare di taxawaalu ñaata ci ay nit ñooy am alal ci alal joojee maanaam duñ ko mën a jariñoo duñ ci mën a jariñ seen i mbokk lii moo lay wan ne kon mbir mi nekkul par hasard am na lu ci yàlla rox subhanahu wa taala kon maanaam bu ñu settantalee maanaam li nga xamante ni moom mooy néew ak wërsëg doomu aadama mu nekk sa wërsëg néew wala li ngay am bu néewee ba nag barke du ci sàtt maanaam settantalaat sa bopp te nga yëg ni lii sa bopp bàkkaar yi nga xamante ni moom ngay def ñetteel bi maanaam borom bi sontal dafay def waa jooju xolam mu nekk xol bu lëndëm def katu bàkkaar xam ngeen ne doy na ci rek kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun borom bi subhanahu wa taala mu ni dafa fënaxal dafa nëxal dafa nëbal seen xol yi sababu bàkkaar yi doon def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne soo defee benn bàkkaar dafay def ab tomb bu ñuul ci sa biir xol nga def beneen bàkkaar mu defaat tomb bu ñuul ci sa biir xol nga defaat beneen bàkkaar mu def tomb bu ñuul ci sa biir xol doomu nay natt leen seen bopp ma natt sama bopp ñaata ci bàkkaar la ñu def par bis kon ñaata ci tomb la ñu am par bis yonent bi noonu lay dëkkee ba xol bi dafay dem ba muuru daal di ñuul ak ay tomb loolu mooy arraan su boobaa lenn ci mbaax dootu ci mën a dugg waaraate lu mu ba bari bari bari bari dootul tàbbi ci xol bi xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gishawa doomu ndey ca jamono joojee maanaam kookee maanaam la ñuy tuddee qaswatul qalb daf koy dal moom la borom bi di wax suma qasat qulubu min ba'di zalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa xol yi dana mel ni xeer saasaa sax xeer tane ko ndax léeg-léeg ngeen seen xeer bu balla di génn ndox léeg-léeg borom mu ni xeer dana xar ngir ragal yàlla subhanahu wa taala waaye loolu yi fekku ci la nga xamante ni moom mooy ab xol kon ndeke bàkkaar dafay lëndëmal xol bàkkaar dafay muur xol di nga jàng alquran doo mën a tadabbur di nga jàng alquran doo mën a def settantal te wallahi doomu lay xoolal salafu saalih li leen yàlla mayoon ci tadabbur alquran dama ci joxe kenn misaal rek ku mel ni cheikh al islam ibni taymiya xoolal buur bu kaccoor la dajaloon buur bu bon bu yées mu ne ko dama lay rey mu ne ko soo ma reyee ma nekk ko shahid dama lay dàq nga génn dëkk bi mu ne ko soo ma dàqee ma war a def settantal ci kéemtaan yàlla yi ne ci àddina bi dama lay tëj mu ne war a def settantal ci alquran xool leen ci kaso la dee xool li mu génn ci ay njariñ léeg-léeg dafay indi ay njariñ yoo xamante ni wane ay xekam yoo xam ni borom subhanahu wa taala mi ngi koy def ci alquran te lépp maanaam dara du ko may nit ki lu dul tadabbur moo tax borom bi wax na ko afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha doo mën a tadabbur alquran doo jëriñoo alquran alquran doo ko déglu mu def benn choc du def benn effet ci sa xol lenn loo xamante ni moom moo mën a soppi nit maanaam dafay romb ci sa xol rek man ras saxaab féew lay def dem yoonam lu tax parce que xol bi pareetul pour téye li nga xamante ni moom mooy njub doomu ndey lii kenn ku nekk ci ñun tey jamono bii ñuy dund boo ci na nattee sa bopp jarul ngay nax sa bopp ndax wolof yi dañ ne mag du nax boppam maanaam ku nekk tey boo yëgut li may wax lépp it am nga loo ci yëg ci sa biir xol kon loolu moo lay wan ni maanaam jeexintali bàkkaar yi mi ngi nuy alak bokk na ci jeexintali bàkkaar mooy maanaam tumuranke ak ñàkk solo boo xam ne yàlla daf koy roof ci yow sa digganteeg nit ñi wallahi da ngay torox defkatu bàkkaar foo ko fekk day torox ba jox leen ci benn misaal kenn ku nekk ci ñun na settantal li muy def ci ay bàkkaar bu ko yàlla nag toog benn jamono mu toog ak ñoo xam ne yàlla baaxee la moo xam ay nit yàlla wala ay boromi xam-xam lañ bu jotaay bi yàgg ngay gêné wu bu jotaay bi yàgg ngay gêné wu lu tax parce que dafay am wéetaangeeg naqaru xol boo yëg loolu la la ko def nag mooy bàkkaar yi doo mën a composé mukk nit ku baax saa su ngeen composé woo ngeen nar a jege yoo rek da ngay gêné wu da ngay xat da ngay mel ni ku tëju fekk na li ko def mooy bàkkaar yi ci biir xol bi saa soo xamante ni maanaam àndandoo am na moo xam tukki la moo xam lu mu mënti doon nga ànd ak ñu baax ñoo xamante ni ñoom dañuy moytu bàkkaar da ngay xat ba keroog ngay ñibbisi loolu yàlla moo koy def ci li nga xamante ni moom mooy ay bàkkaar ñaareel mooy da ngay nekk ku doyadi wallahi ku doyadil yàlla subhanahu wa ta'ala yàlla doyadil la yàlla ku ko doyadil rek mu doyadil la te ku yàlla doyadil ku nekkee yaay ku doyadi wa man yuhinini llahu fama lahu min mukram képp ku yàlla doyadil kooku kenn mënatu koo teddatil donte nit ñaa ngi koy yëkkati yëkkati nga yëkkati làmmañ la parce que mooy diisal seen i poos waaye bu ñu wéetee seen biir xol loolu dëgg ndax yàlla moom moo gën a xam xol yi bokk na ci jeexital yi nga xam ne bàkkaar dana ko def ci nit te boobu su fekkoon ci ni loolu rek mooy jeexintali bàkkaar doy na sëkk mooy xirmaanu taa ndax amul leneen loo xamante ni jar nañu koy lim bu taa amul topp yàlla subhanahu wa taala yàlla da ngay xañ nga mën koo topp doomu ndey saa sooy def bàkkaar damaa tële naafila guddi damaa tële julli yor yor damaa tële jàng alquran damaa tële zikr damaa tële ziyaare bàmmeel damaa tële nangam damaa tële nangam seetal say bàkkaar ndax bàkkaar dafay xañ def def topp yàlla doomu ndey gis ngeen salafu saalih dañ doon wax ni maanaam tiyaaba dafay kobas moroomu tiyaabaam mu fekk si ko waaye bàkkaar dafay kobas moroomu bàkkaaram mu fekk si settantal li ma leen wax tamala sa bopp benn weer rek ngay def di joxe fi sabilillah beneen weer bu delsee soo ko deful da ngay xam parce que da nga koy tàmm ba day nekk laa ko ci yow kon ndeke def lu baax dafay xëcc ay tiyaaba saa soo defee benn ëllëg da ngaa bëgg a def ñaar waaye bàkkaar dafay ji di xëcc ay moroomi bàkkaaram saa soo defee benn bàkkaar am na lu mu yàq lu mu wekki ci sa biir xol nga defaat beneen bàkkaar mu wekkiwaat tuuti ñaar yu si wekki wekki bu ci amee rek nga commencé am doy di xol goo yëg soo liggéey booy def bàkkaar dootul doyati ci yow kon ndeke bàkkaar maanaam dafay xañ ay topp yàlla doomu lay kenn ci salafu saalih man ñooñee nga xamante ni maanaam ñoom lañ ñu royloo tàmbale ca saxaaba ya kenn ci ñoom nee na mas na maa toog juróom benni weer mënumaa jub guddi jul ci sababu génn bu ma sa génn rek dajeeg ci mbedd bi jigéen ju sol lu xaram ma xool maanaam benn xool boobee rek mu xañ ko mu mënta naafila guddi juróom benni weer maanaam loolee kon la ma lay wan maanaam kon ñun maanaam ñun moom suñu yëf jëru sax ñu koy wax maanaam suñu bopp ñun jëru ñuy wax lu tax parce que lu yàqaloon ñooñee rek ñun téeméer ak fukk ak juróom-ñaaram ñu ngi koy dund te it di rafet njort jàpp ne ñu ngi baax le waaye borom bi subhanahu wa taala moom xam nañu baax le ak ñu bon le juróomeel bi wala juróom-benneel bi ci jeexintali bàkkaar ci nit ki moom mooy borom bi dafay jafeel say mbir seetlul def katu bàkkaar bu nekk li ngay yaakaar muy tas bul xam nu toll saa soo yaakaaree dafay tas wala li ëpp ci da nga yaakaar day tas da ngay lijjanti mbir ba am ci yaakaar ba nga defee ni sotti na ba yow da nga ciy bëgg am kóolute ni sotti na maanaam mu tas moo xam da ngay déposé këyit pour jàng da ngay déposé pour ñu jël la da ngay déposé pour liggéey da ngay wut métier lu mu ci manti doon maanaam da ngay gis sa yaakaar day tas lu bari sababu bàkkaar yi la ñaareel mooy taasirul umur say mbir day jafe mbir moo dugg rek borom bi teg la ca dat da ngay dugg ci benn mbir même léegi da ngay jàpp ni sax yow sellal nga sa yéene yaa ngi bëgg a wut tiyaaba nga dem ba ci biir nattu fekk la ca boo xam da nga réccu ni su ma yëgoon kon lekkati maanaam bàkkaar dafay sabab maanaam nit ki ay mbiram daal di jafe fala yatawajjahu ila amrin illa wa yajiduhu maasuran inda du jëmlu ci benn mbir lu dul day fekk bunt boobee nekk lu jafe lu tëju ci moom muy lijjanti lu yomb ay nit nga gis loo xamante ni lu yomb la ay nit mu yomb ci ñoom yow nga di lijjanti mu jafe seetan salaatal sa bopp moo tax borom bi di wax ne istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursili samaa alaykum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhaara borom xam-xam bu mag benn waaye dafa mës a ñëw ci moom di ko jàmbat li nga xamante ni moom mooy nawet bu yàq mu ne ko demal nga jéggalu ji yàlla say bàkkaar moo bari ñu toogati diir beneen waaye ñëw di ko jàmbat yàlla da koo nattoo moom soxnaam doom bi ñu am ñu génn àddina wala amuñu doom mu ne ko jéggalu jël say bàkkaar a bari beneen waaye ñëw di ko jàmbat moom dafay liggéey ba sonn waaye du mën a am dara ci li muy liggéey mu ne ko seetaanal say bàkkaar moo bari noonu ngay laaj ko waaw li nga wax yow moom mooy lan mu sukkandiku ci aaya bi ma jàng istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara jéggalu leen seen waram ndax jéggalaa koonu bàkkaar la yursili samaa alaykum midrara day wàcc asamaan muy rutututi ak am ndoxam ndoxum barke wa yumdidkum bi amwaalin wa banin mu yokk leen ay doom may leen ay doom may leen li nga xamante ni mooy alal kon ndekki jéggalu yàlla mooy indi wërsëg doomu lay bokk na ci jeexintal yi nga xam bàkkaar dana ko def moom mooy jaam bi dafay dem ba dafay doyadi ci kanamu yàlla subhanahu wa taala dafay doyadi ci kanamu yàlla dafay doyadi ci jaam yi kenn ci salaf da doon wax ni man su ma gisee ma digal sama soxna dara mu lànk wala mu jëflanteeg man jëflante bu bon muy damay xam ni maa def bàkkaar mu ni su ma waree sama fas mu wangintu ma damay xam ni maa def bàkkaar muy ndax bàkkaar yi yàlla dina la ko wan ba ci soxna si nga yore ba ci doom ji nga yar ba ci fas bi ngay war maanaam ku lànkal yàlla fa min baabi awlaa jaamu bi yàlla lànkal la kon doomu lay maanaam nit ki jaam bi dafay torox ci kanamu yàlla subhanahu wa taala waaye dafay torox ci kanamu jaam yi li ma waxoon sànq ci wéetaange gi ngay wéet ak toskare gi ngay toskare boo nekkee ci biir ñi nga xamante ni ñoom ku dul def bàkkaar amul waaye ñoom ñi ngi moytu luñ man loole rek doy na ci wan la sa toroxtaange ñaareel bi moom mooy maanaam da ngay nekk ab jaam boo xam ne bu doyee di doo ñaan mu nangu sa lenn yàlla soo taala soxlaat xoolal yonent saa sallam ba mu waxee yonent yi yàlla daf leen a digal comme maam yéen nit ñi yàlla daf leen a digal comme li mu digal yonent yi fàggu leen fàggu teef bu lew te ngeen lekk lu lew yonent ba muy nit yow yàgg mu tudd benn waay boo xam ni foo ko fekk mu ngi pënd takk cuqaaral karaw ba xottaate ko ay yére li muy lekk dafa xaram li muy sol dafa xaram li muy naan dafa xaram fi muy tëdd dafa xaram ba pare muy tàllal loxo di ñaan yàlla yonent bi ne anna yustajaabu la kii na ko yàlla soo tala di nangulee kon ndeke bàkkaar bokk na ci jeexintalam mooy day waral ngay ñaan du nangu bàkkaar bokk na ci ay jeexintalam mooy ngay ñaan du nangu ñaata ci ay soxla la ñuy am yoo xam ne jub nañ ci waxtu wañ war a jub sellal lañ man saata sax nga jooy wala nga jooy jooylu ba pare yàlla du la ko fajal fekk na fa nga war a jaar nga jaarut mooy da nga war a jéggalu say bàkkaar moo tax ibn al qayyim rahimahullah day wax ni bokk na ci bunt yi nga xam moo gën a gaaw ci buntu nangu ñaan mooy feeñal sag lottu ak sag nangoo nekk ak njaam ak say bàkkaar yu bari tuubal yàlla jéggalu ko ñaan ko bàkk ko kañ ko kon doomu ndey bàkkaar li ci nekk ci ay musiba yuy delluwaat ci nit ki ci jëmmam lu bari la bokk na ci jeexintal yi nga xamante ni maanaam bàkkaar dana ko def mooy bàkkaar dafa yàq am xel doomu ndey xel muy jëriñu ci diine ak muy jëriñ ci àddina bu nekk yàlla moo ciy roof leer waaye waxoon naa sànq ni leer googee dafay rocceeku ngir li nga xamante ni moom mooy bàkkaar ñaata ci ay nit ngay gis ñu topp ay bàkkaar ba dañuy dem ba da ngay defee ni ñi dañoo tàqalikoog seen sago fekk na dofuñu jinna jàppale naanuñu dara waaye borom bi moom moo rocc xel mi doon niital di leeral li nga xamante ni moom mooy maanaam doomu aadama ci moo xam boo nekkee kuy jàng boo nekkee kuy liggéey lu mu ci mën ci doon da nga bëgg sa métier bënn te du bënn te fekk say bàkkaar nga bëgg a réussir sam njàng te réussir oo fekk say bàkkaar nga bëgg a réussir sa métier réussir oo fekk say bàkkaar la kon ndeke maanaam bàkkaar dafay yàq am xel bokk na ci jeexintal yi nga xamante ni maanaam bàkkaar daf koy def ci nit mooy dafay tuur kersa doomu ndey xoolal tey maanaam borom xam-xam dañu alxayaau min alxayaati alxayaau min alxayaati kon fala xayaata bila xayaa kersa alxayaau kersa min alxayaa mi ngi bàyyi koo ci dund kon buñ ñëwee dund kersa tax ñuy wax kon bu kersa amatul mooy ne kon dund amatul fa ajsaamuhum qabla alxuburi quburun comme nit ki jëmmam jaa ngi dox waaye ak koor la buy dox dee na ba noppi parce que ndoxum kersa saa su tuuroo ci doomu aadama ji maanaam kookee man yàlla dafa soxlaatut len na yonent moo tax mu ne ida lam tastaxyi fasna ma chit boo amatul kersa defal la soob luñ la jiiñ yow dara jomb la doomu lay xoolal tey bu njëkk dañ doon wax sax dañ doon jëmuñu woon ci ku jigéen jullit bu jigéen waxi góor lañ doon wax waaye tey waxatuñ waxi góor waxi jigéen la ñuy wax maanaam jigéen nga ma xam ni jamono bu mësaan ak ni tëll ci mbedd wala mu ni tëll ci kër jàkkaarloog góor wallahi dafay tourné wala mu làq dafay tourné wala mu làq man toog naa ci jamono ji koo xamante ni mi ngi dund ba léegi benn maire la mu nit li ma mu nii am na benn bàjjenam boo xam ni benn bis benn doomu ndajaayam moo ñëw jël loxoom teg ko ci poojam da koo yendoo jooy suba ba ngoon fii ci réew mi ñu dëkk maam loolu moo lay wax ni kon mbaax mi ngi fi woon jël loxoom teg ko ci poojam rek mu yendoo koo jooy ba ngoon jot te te du du du sax ñoo xamante ne xëy na diina ji ñuy wax leer na ci seen bopp maam lii moo lay wan ni kon démb kersa amoon na ñaareel bi moom mooy da ngay gis ni maanaam jullit bu jigéen xalaatul woon a ñeme sax di jàkkaarloo ka nga xamante ni mooy góoru jàmbur di wax ak moom ku nekkul jàmbur ci moom min ki nekkul jàmbur ci moom bu dee wax ak moom sax dafay jaaxle dafay patine xool yàlla mu doon wa jaatu ihdahuma tamshi ala sihya qalat inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqayta lana kaddu yi gàtt parce que jamono joojee maanaam yàqute nekkul woon ci jullit ci jigéen ñi ba taxoon na maanaam ak jigéen ñi may jàkkaarloog góor wow bët lu ko neex wax maanaam loolu amul woon waaye ci jeexintali bàkkaar yi moo tax léegi maanaam lu boo doon dox ci mbedd tey boo moytuwul dañuy bëgg wallahi sànq ci suba rek benn mbokk mi ngi ñëw sama kër ma di ko gunge ñu ngi taseeg benn mbokk bokk xaw tuuti kon sama man maa dem daal ba sigg yem ci moom man jàpp sax def ci digg mbedd mi fi ñuy jaar man maa dem ba sigg yem ci rek tourné lii moo lay wan ne maanaam boo siggul sax dañ lay bëgg kon kersa amatu maanaam lii lépp ci sababu jeexintali bàkkaar yi ñaareel moom mooy xoolal démb ak jullit bu jigéen bu daan dox ci mbett bay romb ay góor ngelaw naawal séem waxuma poojam waxuma poojam tànkam feeñ wallahi bu ko jooy dana ko naqarlu ay fan maanaam tey boo dee xool li ngay gis moom mooy man lépp loo xamante ni luñ doon nëbb la tey boo génnee da nga koy gis mooy li ma la doon wax ni la dem na ba léegi maanaam nit bët mënatul jooy parce que bët du bëkkee xool lu bon ba pare di jooyal yàlla subhanahu wa taala mënul nekk mënul nekk kon ndeke mbokk yi bàkkaar bokk na ci ay jeexintalam maanaam mooy dafay rocc li nga xamante ni moom mooy kersa dafay rocc kersa ci doomu aadama ji te dund koo xamante ni kersa amatu te fala xayra fi hadihi alxaya googee dund maanaam yiw amatu te bokk na ci jeexintal yi nga xamante ni bàkkaar daf koy def mooy bàkkaar dafay indi dafay yëkkati ay xéewal dafay yëkkati ay xéewal waaye di indi ay ay ay musiba mooy li ma junjoon sànq ci jiital nga jiital laltaayu waxtaan bi wan la ni la maanaam sababu bàkkaar dana waral yàlla di wàcc ay feebar yoo xam ne xamuñu ko woon waaye ay musiba yoo xamante ne tamit xamuñu ko woon li gën a raglu loolu mooy bàkkaarkat bu nekk jàppal ni li ngay def li ngay def ci bàkkaar maanaam am na nit ñoo xamante ni ca lañ leen jaalee woon miraaseen lañ ci loo def ci bàkkaar bàkkaar boo def xamal ni am na nit ñu fi jaaroon yoo xamante ni maam bàkkaar boobee moo nekkoon sababu seenu bëj ñu miraas leen loolee mooy lan borom bi subhanahu wa taala mu ngi lay nit ci li mu ne leen ngóoru jigéenu ngóor jigéen ak jigéen góor moom moo sababoon bàkkaar borom bi miraasoon ña nga xamante ni ñooy nit yun ci yàlla lu ñu tàggi leen fàttali ndax ca la malaaka ba jëkkoon duppal ñi seen dëkk ba dëpp ko borom bi taw ci seen kaw ay xeer dajale ci ñoom mbugal moo xam ni kenn musuta dajale mbugal mu ni mel ba pare ci aay mu ni wa maa hiya min az-zaalimiin ba ay continue ñaareel ji mooy peese ñàkk matal di nax nit ñi ci ay peese loolee ca la yàlla subhaanahu wa taala dajale woon nit yéen ci yàlla Shuayb ñu miraas leen fàtte leen borom bi alal leen te ba léegi tey am na ñu koy def soo dee xool di mbërmbërlu ci kaw suuf ak di rëy rëylu maanaam loolee ca la borom bi subhanahu wa taala alakee woon firaaw la ñu miraas ko fàtte ko soo dee xool li nga xamante nii moom mooy maanaam puukarewu maanaam di fës di wane sa bopp ci kaw nit ñi ca la yàlla mëddee woon la nga xamante ni moom mooy xaaroon ñu miraas ko fàtte ko kenn waxatul ay waxam kon doomu ndey defkatu bàkkaar bu nekk xamal ni yaa ngi sol mbubum kañ miraasoon ba fàtte ko borom xam-xam ñu ni defkatu bàkkaar bu nekk na yëg ni maam mi ngi sol mbubam kuñ miraasoon ba fàtte ko kon am na lu tax mu def si ba léegi mooy li borom bi wax rek su fekkoon te ni kenn ku def bàkkaar borom bi subhanahu wa taala alak la ci sababu bàkkaar boobee kon kenn def ci kaw suuf waaye borom bi daf leen di xaaree kon alkande yi ñuy gis yëpp ay alkande yoo xam ne maam borom bi moo ñu koy gaawee borom moo koy gaawee waaye wala adabul axirati akbar law kaanu yaalamuun man mbugalum alaxira moo gën a tar moo gën a metti su fekkonte ne xam nañ bokk na ci jeexante ni bàkkaar ba léegi mooy nekke bàkkaar boo def rek li ëpp ci bàkkaar yi bokk maanaam da ngay dugg ci rëbbam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yow def kat bàkkaar bi yonente bi rëbb na te fekkee woo jamono loolu mooy la tey boo gisee góor guy nuru nuru lu jigéen wala jigéen guy nuru nuru lu góor kookee yonent bi salaa sallam rëbb na ko te fekkante wu jamono yonent bi ne yal na yàlla rëbb góor guy jigéen jigéen lu ak jigéen ji ji góor góorlu xoolal xam ngeen mbokk yi lan mooy rëbbam yàlla walladi nafsu muhammadin bi yadi ku xamoon rëbbam yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam buñ ne la kii ku yàlla rëbb la même boo jàddee ci koñ mu jàdd ci koñ yow da ngay teggi beneen koñ ak lu mu sori sori maam rëbb moom mooy ku yàlla subhanahu wa taala sori la yërmande xoolal li yàlla rëbbulu ci alquran li leen yonent sa salam rëbbulu ci xadiisam ci sunnaam xoolal tey ñaata yoon ngay gis léegi góor ñi ñooy soltal ko jigéen ñi jigéen ñooy soltal ko góor ñi léegi góor ñooy wattu maam jigéen ñooy wattu góor ñuy létt wallahi lii maam tey man su ma gisee ay jullit yu koy nit li di reetaan wallahi man dama leen di mere man dama jàpp ni lii jullit bu koy nit li dafa waroon di jooy lu tax ndax maanaam bàkkaar yi nañu yëg nii yàlla soo tala bu dee alak du alak mukk ñi doon def wattaqu fitna la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa borom bi su dee alak du fekk mukk mukk ña nga xamante ni ñooy def kat bàkkaar yi mu alak leen yem ci déedéet borom bi dafay alak ba alak ñu defuloon bàkkaar comme ni ko la fi léebee ñax gu wow day tàkk ba lakkaar yi ñax gu tooy doonte yoonam nekku ci kon doomu lañ maanaam lii ab jullit daf ko war a di naqarlu kan ci ñun mooy jub def ci effort ngir na dañ kan ci ñun moom mooy jub mu julli guddi mu jéggalu yàlla di ñaan yàlla ngir na dañ kan ci ñun moom mooy def effort ci famille bi ko gën a jege ndax yonent bi yàlla doon wax anzir ashiratakal aqrabin sa famille ñi nga ci gis ñuy mooy yàlla ana ban effort nga ci def yow mi yàlla yónni njub yow mi yàlla leeral njub da ngaa defee ne yowmal qiyaam yàlla du la ko laaj dana la ko laaj wala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin te yow mi jot a xam ne yow yaa fi taxawal mursalin yi kon na nga yëg ni yow mi danañ la laaj ëllëg kon lii li mu lay wan mooy maanaam doomu aadama yi tey talente rekk fi am waaye ñëpp a feebar ndax ay bàkkaar tey wan mooy maanaam doomu aadama yi tey talente rekk fi am waaye ñëpp a feebar ndax ay bàkkaar niki noonu maam nur nuru lu góor wala nur nuru lu jigéen wala col col ko góor wala col col ko jigéen bu ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb na ña nga xamante ni ñoom ñoo koy def niki noonu ku soppi nu mu tëdd ci dig dig digali suuf yi mën nañ ko joxe misaal bu njëkk bu doon àll ba damay wax dig digali tool nga sempi siraan yañ fa samp wala bant yañ fa samp ngir xëcc ci toolu jàmbur tuuti puus ci ngir sàcc ci suufam yéen sa sala mu ne yàlla rëbb na ku soppi mandargay suuf si ni ki doon gis ngeen terrain yi tey da ngay jënd fii ñun la fii jaay nañ ko diw jaay ko diw jaay ko diw nga gis koo xamante ni day jënd terrain pare bu dee tabax mu yokk ay mètre tuuti ci lam doon tabax ci yëfi jàmbur yéen sa sala mu ne yàlla rëbb na kii def jëf joojee loolu tey moo daanaka boo demoon ci tribunal yi tey jii ñaari problème yi maam fukki problème boo ko boo ko gisee maanaam juróom-ñeent yëpp yooyu doon mi ngi nekk ci sëy yi wala mu nekk ci li nga xamante mooy problème suuf kon lii mooy dëggal waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki noonu yàlla rëbb na kiy ger ak ki ñuy ger xoolal te foo dugg ger da ngay di jënd carte d'identité ger da ngay di jënd passeport da ngay ger da ngay dawal oto da ngay ger fo foo jëm da ngay métti mooy di jënd da ngay ger boo ko defut doo dem xoolal wallahi maanaam jullit boo xamante ni yëg na ak ngëm yàlla te mu dëggu ci moom na ko ñàkk na ko ñàkk su nekkee lu mën a ñàkk la ndax man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran min ku bàyyi dara ngir yàlla wallahi yàlla dana la wërsëgalal lu ko gën ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla dana la wërsëgalal lu ko gën dinaa ci joxe misaal kenn ci salaf yàlla daf koo naxtu benn bis mu xiif xiif boo xam ni dafa jéggi dayo te xam ngeen islam may na la boo xiifee yenn xiif yi maanaam bu fekkoon ni da ngaa toll foo xam ne métti nga gis sax maam nga lekk boo naree dee bi mu xiifee xiif bi métti lool mu génn daal di for benn kees ab kees boo xam ñu ngi ko àmbale xamul lu ci nekk na waaye bi mu demee ba këram mu daal di koy teppar ñi ñu ngi ci fekk jamaa moom moo nekk ci biir maanaam peru jamaa lañ denc ci biir ab caq la moom du benn pees waaye ab caq la bu ñu ko defaree denc ko ci biir fi mu toogee di xalaat xelam di ko wax waaw na ko laajteeg na ko joxe na def nii far noonu rek mu dégg ci ginnaaw këram ci tappaatu sàkketam kuy laajte ab kees bu réer mi ngay waxaare nan ku ko for day li ci nekk daa rëy ba dinaa la jox nangam ak nangam li digge lu bari xelam ni ko kon génne ko nga jox ko soo ko ko joxee mu jox la lim la nga nga fajee sa xiif doo ci am benn bàkkaar mu ni ma génne kees bi jox ko ko mu ni bi ma ko joxee waa ji waa ji xamu koo gëmee ndax defoon na lii kenn du ko far di ko delloo bi loolee amee mu yëkkati koppar yam waxoon dana ko jox ko ko far mu jox ko ko waa ji bi mu demee ba ñuy téye koppar yooyu xelam ni ko yow da ngaa delloo nit ki keesam bi ngir yàlla wala da nga ko koo delloo ngir bëgg a jot ci neexal bi bakkan bi mu xam ni kon bëgg a jot ci neexal bay tax mu gedd loolee te mi ngi xiif de wallaahi mi ngi xiif mu gedd loolee waa ji dem waa ji da koo saraxu ba bëgg ko faa bàyyi mu ni ko yóbbul soxlaatuma mu continuer ci xiifam ba yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ko lu mu lekk jam aj mu ñëw màkk di faaj maanaam borom kii lii may wax ni boo doon seeru alamin ni bala di ko ci fekk dama teewlatul kan la ci turam waaye lu wér la léegi bi mu dikkee di aj bi muy ñibbi mu dugg ci benn gaal maanaam li waajee wax rek ma kullu ma yatamanna al mar'u yudrikuhu tajri riyaax bi ma la tashtahi sufun nit ki du lu mu bëgg dana ko am ndax léeg-léeg ngelaw dana ëpp gaal yóbbu ko fu mu bëgg te dem mu ne ngelaw li dañu yóbbu ba ñu wàcc ci benn île boo xam ni musuma xam île boobu fu féete ci kaw suuf nekk île boobu ñi fa nekk ay nit lañ yoo xam ne ñoom jànguñu xamuñ dara ci islam te moom def na nekk na borom xam-xam mu ne bi ma wàccee ma ñëw defar sama jàkka sa ndaw tàmbalee julli maanaam waa dëkk daal di doon gis nekk ñu xemem islam ñëw ci moom yónnee seeni doom ngir mu jàngal leen alquran ndekete kees bi nga xamante ni moom la delloo woon waa ji bi mu ñibbee dëkk fu mu mës a toll rek danaan ñaan yàlla naan kii ko far day musuma gis mbindeefu yàlla bu mel nii ci kaw suuf kii day yàlla na ma yàlla dimbali ba ma gisante waat ak moom ci kaw suuf xam naa sax du mën a nekk waaye su boobaa dinaa ko may sama doom bu jigéen ngir yàlla bi waa ji dikkee di jàngale ci dëkk bi ba heure ñibbeem jot muy day ñibbi waa dëkk bi téree ko ni ko dañ lay may soxna ci dëkk bi mu gàntal ba sonn ñu ni ko dañ lay may soxna biñ ko forcé ngir ñokk ko ngir yàlla ñu ne ko am na fi benn jigéen boo xamante ni moom papaam daa génn àddina waaye comme am na alal nañ la ko may ngir li nga ñu fay li nga ñu liggéeyal alal joojee maanaam ñun ñoo la ko jox boo ko bëggee boo ko bëggul biñ ko mayee soxna soxna si ñëw biñ ko muree waa ji mi ngi xool baat bi ndeke caq ba mu soroon ba delloo ko moom la ndaw si takk maanaam bi ñu ko laajee lan moo tax xoolul ndaw si muy xool caq bi mu ni caq bii day ab mbir am na ci niti leen histoire bi waa dëkk bi yëpp daal di takbiir kabaar sant yàlla subhanahu wa taala ni moo ne waa ji day mësul di dañ di ñaan yàlla yal na yàlla dajalewaat koog yow ba may la doomam mbir maa ngi noonu léegi jot na ci doom ji jot na ci caq bi doom ji génn naa dina caq bi des naag moom mu jaay ko jariñoo ko moo tax danaan toog di jàngal ay ndongoom yàgg mu ni gis ngeen lii ma am ci téereeg lépp ci sababu caq boobee la bokk man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla laa wax yàlla wërsëgal la du ma wax yàlla wërsëgal leneen dama wax yàlla wërsëgal la lu ko gën ndax waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kon doomu nag maanaam bokk na ci jeexintali bàkkaar yi musiba yi maanaam ger ak li nga xamante ni mooy neexlante yi nga xamante ni moom mooy am maanaam jullit bi daf ko war di moytu kon doomu nag képp koo xamante ni yaa ngi def ci benn ci bàkkaar yooyee na nga yëg ni kon dugg nga ci rëbbam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon su fekkente ni doomu aadama gis na ni xeet yi fi jiitu yëpp ñi yàlla alak ay bàkkaar lañ leen miiraatee woon li ñuy dund ci ay jafeñ-jafeñ loolee ci sababu bàkkaar yi ni dund la laa shakka ni jot na yell na doomu aadama yi delluwaat ci seen borom tuubal ko wa anibu ila rabbikum wa aslimu la maanaam nañ dellu ci yàlla subhanahu wa taala jébbalul ko jébbalu gu wér gi nañu jébbalu jébbalu gu wér gi ci yàlla subhanahu wa taala ndax jébbalu gi tax ñuy wax jébbalu gu wér gi googee yàlla lañ koy defal nañu topp yàlla subhanahu wa taala ci dëkkee def ay ndigalem waaye bàyyi ay laa taqnatu min rahmatillah ibni abbas doon wax ni aay bi gën a yaakaarlu ci alquran mooy aay bi yéen ñi nga xam ne da ngeen a def bàkkaar ba nëpp ndax ay bàkkaar yéen ñi nga xam ne da ngeen a ëppal ci def ay bàkkaar yéen ñi nga xam ne da ngeen a def bàkkaar ba maanaam bu bàkkaar amoon a xet di xeeñ ku ngeen jege mu tax ba kanam yàlla mu ne laa taqnatu min rahmatillah bu leen naagu bu leen ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla subhanahu wa taala inna allaha yaghfiru dunuba jamia mboole seen bàkkaar yi soo yëgee ni def bàkkaar nga def nga tuub tawbatan nasuuxan borom bi dana la ko jéggal kon fa ma tawbatu nasuux tuub gu dëgg moom mooy tuub koo xam ne ki su koy def dana réccu lam defoon ci bàkkaar réccu ngi gu doy ni muy bañee waccu lekkaat ko ni muy bañoo dellu ci kéefar ni muy bañee ñu tàbbal ko ci taal noonu lay bañee dellu ca bàkkaar bam doon def misaal bi may joxe pour wane ni ñun ñi suñuy tuub wallaahi war nañ koo seetaan ñaata ci ñun tey la yàlla gindi subhaanahu wa taala ñaata ci ñun la yàlla gindi nga dem ba toog nga rombanteeg ay nit nga wax sa xarit kii de ñoo doon ànd ay temps xoolal wallahi bi nga koy wax yaa ngi reetaan lii moo lay wane sa tuub gi dëgguwut loolu moo leen sa tuub gi dëgguwut ndax bu fekkoon dëggu na loolee doo bëgg sax ko koy nettali waxuma yow nga di ko nettali ñaareel mooy bu mënta ñàkk ba nga koy nettali da ngay jooy ndax da nga doon mooy yàlla kenn mooy yàlla di ko nettali reetaan kon moo lay wan ni ñun ñi sax suñuy tuub war nañ koo seetal talaat moo tax yàlla mu ne tuubu ila allahi tawbatan nasuha tuub gu dëgg kii ñoo doon ànd moo xam góor la moo xam jigéen la kii ñoo doon ànd fii de ay jamono daan nañ fi ñëw fii nangam sàngam bi nga koy wax yaa ngi koy wax sa bopp muy góorgóorlu ci dina yaa ngi reetaan moo lay wan ne dëgg wala ndax bàkkaar kenn du ko def donte tuub nga ko di ko nettali di reetaan bu mënul ñàkk bu mënul ñàkk nga nettali ko jooy bu mënul ñàkk moom nga nettali ko nettali di ko naxarlu waaye déedéet da nga koy nettali nettali goo xamante ni saa saa sax nga reetaana la ca kon lii moo lay wan ne tuub yi jar naa seetantalaat te wallahi yàlla du nangu ci tuub lu dul tuub gu dëgg tuub gu sell ñaareel moom mooy nit ki muy am yéene bàkkaar yi mu defoon dootu ci delluwaat ba faw ba faw abadal abidin lu dul rëcc rëcc doomu aadama yëpp ay defkati bàkkaar lañ waaye def kati bàkkaar yi ka ca gën mooy koo xam su defee bàkkaar dafay tuub doomu ndey yàlla soo dal dafay tàllal loxoom ci bëccëg tàllal loxoom ci guddi ngir mooy kati bëccëg yi tuub ngir mooy kati guddi yi tuub xool yàlla soo dal ni mu baaxee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn yéefar ku sonal julli ñi la bi mu leen sonalee su ma maam waa ji bi mu leen sonalee ba ci benn xare na Uhud la wala Badr bi mu ñëwee ci biir xare bi rek yàlla sonta la woon ku njub mu tuub ci biir xare bi ci biir xare bi ci jaas yi takkantee mu tuub bi mu tuubee fi mu wëlbati ko di corantee ki jaas yi rek ñu ray ko yonente mu ne seetal lii rek liggéey lu tuuti ba dopp dugg ànd àjjana ànd ak ñun mi ngi nii liggéey na lu tuuti ba pare dugg àjjana ànd ak ñun kon lii moo lay wan ne yërmande yàlla ji yaatu nekkum yéefar ba ci sa dernière seconde yi nga war a sukuraat nga tuub dugg ci islam ñu ray la nga shahid moo tax mu ne gis ngeen mi ngi nii sujootul yàlla dara te kooku xaqiqatan sujootul yàlla benn sujud lam yasjud lillahi sajdatan qat fi xayaati ñaaral mi ngi ne dugg na aljana lu tax ndax tuub na tuub gu dëggu fas yéenee soppar ñi lan doon def ci ay bàkkaar kon doomu lay kenn ku nekk ci ñun bul xaar nit di la wax sa bopp ndax balil insaanu ala nafsihi basira su la nit ñi xamul yow xam nga sa bopp ci ku nekk xàmmee na lu baax ak lu bon li nga def ci bàkkaar xam nga li nga def ci ay tiyaaba xam nga lan moo tax ngay kontaan ci say tiyaaba te doo tiit ci say bàkkaar lan moo tax doo nëbb li nga xamante nii moom mooy say tiyaaba ngir yàlla nangul la ko comme ni ngay nëbbee say bàkkaar moo lay wan ni kon ñun ku càmbaraat sa bopp xam ne dese nga kon doomu ndey mu tuub dellu ci yàlla subhanahu wa taala te yëg ni ubbi na ay buntam di nangu tuub yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu an sayiat dafay nangu tuub ci ay jaamam ba pare di fomp ay bakkaar xoolal boo tuubee tuub gu dëgg ni bakkaar di defee ay jeexintali musiba noonu la tuub gu dëgg di def ay jeexintali yiw yàlla mu ne ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanaat mbo oo ma soon a jaar mooy fa yàlla yàlla mu ne danaa fa jaar soppal li ko aw yiw xoolal li lu ko gën a rëy xoolal li ko gën a rëy la nga doon def ci ay mooy yàlla mu wóor la lii mooy la nga xëy tuub tuub gi dëgg nga deltu gannaaw jooyal yàlla subhanahu wa ta'ala toroxlul ko jugal ko guddi waxtu woo xam ne yow ak yàlla kese la ngistal mënu fa am borom bi mu ne su boobaa ulaayika yubaddilu llahu sayiatihim xasanat yàlla mu ne fa nga doon jaar di fa mooy foofa la ñuy jaar soppar ñi mooy nga yëpp aw yiw te loolu lu yomb yàlla subhanahu wa ta'ala doomu ndey kon nañu tuub dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala nañu yëg ni borom bi subhanahu wa ta'ala kuy nangu tuub la ci waxtu wu nekk ba mu des nit ki bu demee ba rëccu wees saa soo demee ba nga xam ni saw fan mi ngi nii jeex na say mujjantali jéego ci àddina say njëkk yi jéego ci àllaaxira wallahi boo tuubee yàlla du ko nangu yonent moo ko sallallahu alayhi wasallam saa soo demee ba yàlla fenkal jant bi fii mu xëy génnee fii su boobaa soo tuubee yàlla subhanahu wa taala du ko nangu kon doomu nay firawna tuuboon na waaye dañu ko al an wa qad asayt yaa ngi doog a tuub ndax dangaa dem ba geestu xam ni yaa ngi ci milieu géej gi ndox féete na la ginnaaw ndox féete na la kanam amoo bato boo war te xam nga ni mënoo génn kon boo tuubee tuubam ñàkk pexe la yàlla du ko nangu kon doomu nay ku tuub tuubu ñàkk pexe yàlla subhanahu wa ta'ala du ko nangu soo tuubee cawarte gi nga doon def ak fayda gi nga doon def ak fulla gi nga doon def ci bàkk ci bàkkaar fayda jooje fulla jooje def ko ci islam moo tax Abu Bakrin doon wax Omar ndax dangaa nar a nekk ak jàmbaar ca ba nga nekkee ak ceddo nga ñëw ci islam ner nekk ab baqat ma di la wax nga di ma ragal loo maanaam loolu moo lay wan ni kon maanaam nit ki lu mu defoon ci ay tiyaaba maanaam njàmbaarteem bu dikkee ci islam na ko islam xam moo tax kenn ci saxaaba yi ba mu tuubee moom lan la wax mu ni foo ma sa jaar merloo fa islam danaa fa jaar kontaanloo islam maanaam loolu moo lay wan ni kon yëg-yëg maanaam fu nit yegg rek léeg-léeg moo ko fa yóbbu kon doomu lay ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ci turam yu màgg yu sell yi nga xam ne nurulewu ko kenn bokkalewu ko kenn moom mi nga xamante ni moom mooy buur te nguuram gi amul kenn koo xamante ni am na ci benn cër lépp loo xamante ni ay xeeti nguur nguur yu ndaw la ay làcc làcc la moom moo ko làccal ko ko sopp te bis dina ñëw dana làccoo loolee lépp te bu nee li ma ni mulkul yow ma kenn du tont nu ngi koy ñaan ci ay turam yu sell ak ay melokaanam yu mag di ko ñaan di ko torox ñun toroxlu jaam yu nangoo feeñal seen i bàkkaar yu yëg seen i tooñaange ak la nga xamante ni moom mooy seen i ayib ak seen i musiba waaye yëg ni amul kenn koo xam ni mën naa jéggale ay bàkkaar ku dul moom ñu ngi koy ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar bu mu yem ci jéggal ñu suñuy bàkkaar waaye muy soppar ñun ñu ko la nga xamante ni muy aw yiw waaye mu wëlbatil ñu suñuy xol moom mi nga xam ne xolu jaam yi moom ci ñaari baaraam ci baaraamam yi jëmale ko ci ak njub bañ mën a sax ci li nga xam mooy njub loolu ba dee fekk ñu ci wal ilmu inda allahi taala wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain